Californie yow yaa tax président Macky Sall vocal ñu maa nga ñëw wax ak ñun sa parti bi yëngatu na bu ñu gëstoo duñu gis kenn dégguñu kenn ba jaxate nekk prison 4 jours ñu koy va-et-vient te mu yor ay preuve am mu leer Sénégalais yëpp ñu koy va-et-vient man nag nee naa leen xeexuma xuloowuma taaluma yàquma attaqué wu ma waa Pastef sama yoon ci ñoom man parti bi laay attaqué wax ak président Macky Sall direct président coono yu métti nga ñu bàyyee président sonn nañ président jaxle nañu président dimbali leen Baye Diakhaté mu wuy ji ay njabootam dañu jàppale Baye Diakhaté mu dem wuy ji ay njabootam sonn na am na loo xam ne mënuñu ko wax mais nañ ko jàppale Baye day dëgër rek da di góor rek ci ban état wala boobaag léegi day firi gis naa ko mais day firi day wan ne dara mais góor la président Macky Sall bàyyi leen xel njaboot gi ñun ñu amul dara ci parti bi ñoo gën a sonn ci parti bi tey Baye Diakhaté nekk 4 jours man durant 4 jours gisaguma nit kilifa gi mel naa ki ki kii taxaw rek ne kilifa la problème la nañu jàppale Baye Diakhaté nañu dooleel Baye Diakhaté est ce que jàpp nga ne moom kaddu yi muy yëkkati est ce que yooyu yoon gu gu bees Baye Diakhaté lépp lu mu wax da ko fee fekk Baye Diakhaté sosul da leen tegal vérité ci table ji nañu bàyyi doomu jàmbur mu ñibbi dafa jot. ñeent fan mu nekk prison di bàyyi bien. nañ ko libéré nañ ko may jàmm. président Macky Sall waxal ak sa njaboot. wa apé dañoo sétane man kay de ki mako wax wa Benno dañoo sétane nañu jappalé nañu jappalé non dafa metti 4 jours 4 jours bay mënul gis njabotam bay dafa wéet président Macky Sall sa njabot sonu nañ sonu nañ jaxlé nañ nañu jappalé bay Jaxate mu génn fi mu nekk wolen leen yi parce que ñu ngay ragal waaye si njëkk nak njëkk monsieur le président damay wax ci olof ah président ah président ah président woo ref yaal président. in président woo ref yaal président. in sa njaboot président. ngi président. yow président. ñuy xaar yow président. ñuy président. wasalaam njoko njal njoko njal président. Fatou te su la nee waxantuwuma xam nga président boo ñu bàyyee dem koo ñu fii waccal Omar Youm wax na ko fii ak 2024 lu fi xej kër gi yow lañ xam kër gi yow lañ miin boo nee da ngay dem ñun koo ñuy waccal dafa désolé waay. yéen lan la sonal ngeen ma yéen lakkal ngeen ma yéen lëjal ngeen ma yéen dar ngeen ma ni dar maa ko yéen àgg ngeen man ba ngaay ñuy wum ñuy seen ñay fonde ngaay te duñ ca guux yéen la eh doomu jàmbur laa sama ndey dootul amati damay yaakaarul famille ku ma lekk dee ku ma naan mandi ku ma rey génnum réew sama xol tooy ndax ni ngeen may wooy di ma saaga ma jooy ngeen a topp c'est parti fi mu nekk nii ñu ngi koy ñu ngi koy déstabiliser nañ ko écraser benn nu mu yegg teer eh, duul ngeen da ngeen mën nee ngeen na ngeen ma déclarer guerre na neex yàlla bu kuuraa coupé te bu kuuraa coupé sax dinaa wut ci koñ fu am wifi ma dem collecté waat fa na neex dangaa jël becco wodd ko doo tee teg sa runaal na neex Xalifa Sall na neex na neex lan la mais man lan mooy problème man lan laa leen def lu ma dal nag maa ko yóbbi sama bopp man nii lu ma dal maa ko yóbbi sama bopp lu jig njaag maay njaag kenn tooñu maa tooñ sama bopp de ndax kenn fekkuma sama biir kër gii fa pëpp pëppal ma ne ma fuuta tampi ma ne ko naa mun a ma jógal par force ba jaxate dañ koo jàpp ñëwal dem ma ma demee fekkuma fa sa juróom benn nit ma jël sama taxi ma mère ba dikk dem xanaa bu ma demee sax ma masawu magam te ñibbi set waaye may jaay rëy laa meñ naan 24 heures libéré ba jaxate ba tey jii ngeen war maa mën a tuumaa naan bi ma waxee loolu waa Pastef ñoo ma financé ñoo ma woo ne ma naa retiré samay propos ma retiré man da man man ku may xokkatal wala ko jël buumu jaamee di ko dekkil ci ma de kooku dafa judd kooku dafa judd kooku naroon naa judd waaye daa dee ci biiru ndeyam man ku may xokkatal ne ma waxal li nga wax defal li nga def naroon naa judd waaye daa dee ci biirum ndeyam man bi ma nekkee biir APS sax xam ngeen ne man gaynde laa man goor yabu te jigéen du fontoo man du ma xeex ak jigéen yéen xam ngeen ma yeen xam ngeen ma lan la lan la luy problème bi man qu'est-ce que j'ai fait à père en fait tay nit boy jotee ak moom sax dina am cause dina am raison ndax Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi live na nee na policiers yi dañoo dàq pare ñof ñu lacrymogène ministre yeb daw daw ba daanu ba daanu ba ca nu ñu koy direction des douanes maa wax ma ne leen kuy opposé wu na dem opposé wu opposé wu ma résisté wu ma luttu damay jaay sama ñaay loolu sa ngeen du fi am lii da laa wax ñu sampal ma ñu sampal may live yëkk ma tey mbelengaan waaye ñu ma doon sant par live yëpp moy wecce gu sew gi mojo mojo gi ñi nga xamné ne ñu dara kenn kenn ken kenn kenn ràññewul sa ci askan bi ma ne ñi du ma tontu ma ne pat Ama ah, ma gënal prix may may jaay yeen ñi kon sama njaay 1100 personnes fa kon waxal leen yalla di wo futa da nga war Macky da dina nang jar fu pan yo Macky